sëñ bu tedd bi nga bis bi yàlla dogal na ren see ñëw rek ba ñëwee fii di wuy téléphone dégg li mu doon wax mu ñor ma te lépp di dëkk ñu ñëw doon siyaar si suñu xol seet na bu baax ci li nga wax suñu xel dal li wane ne murit nga mënoo wax ñaari baat te tuddoo Seex Ibra Faal Seex Ibra nag ak sa maam daal léegi 91 la sama am gën a jamono mu ñëwee Sëñ Tuubaa dañu mboolem si yéen la koy am ndox tuuru ca kawam mu ne ah bett nan mu ma tudde sama xarit bi ndox tuur ci kaw nga roogu dem waaye suñu borom dana ko fayee ab jarbaatam gane jamono muy suñu baara jaay keroog ba mu ñëwee lakk-lakkale yu mel muy bàyyi suñu maam Ndiaye muy si biir Ndiame Paley di ko suñu Cheikh Fall day lépp. Touba Fall gii ngay dégg ñoom Touba moo Mbaam Fall la tuddee. moo fa ñëw gàncax gi ba tuddee ko Touba ne suñu baara mooy yoon waaye mooy lépp.

ndax ku ñu umpalewul seen baay ba seen Sidi Muxtaar keroog bi mu jiite yoon wi la fi ay korite yu ay korite yu bëri bëriñ fi jógee siñ ci noppee dégg murit ak tiyaan ak leneen ak leneen ci jotaayam rafet boobu ba ni mu wujjee ma maam bi baax kon ndakke li leen di ñaanloo muy ngeen ñaanal nu suñ borom dundal suñu fan wéru suñu cër defal ko xéewal te loolu ba lépp lu am mën leen foo indi si daraje sëñ Tuubaa ab géwël nag bu juree moom mooy yaakaari baayam tas te ñun loolu dëlunu moo tax bu fekkee dañu faaw ñu wax ci bi jërëjëf Mbàkke loolu dama lañ dël yo sëriñ bi ñu ngi lay ziar baax a baax dina ñaan suñu borom wéral la ini la si doole sama Bamba waxtaan wi neex dëgg li ma si neex mooy da ngaa mori teg ba pare dëggalu mori te loolu mooy waaw sëñ Tuubaa nag mooy lépp moom kon Fall balay sama rek ñu ngi ziar baax di sàkku ñaan baax a baax rek lay ci doon duggee am murid la de bu ñu wax sax yàlla xam na ne ko waaye sama sama mag la moo ma yàq parce si tubaab may ñëw di ko déglu boo xamul woon mooy wax waaye lii mu wax ni moo nekk moom yàlla xam na ni bi ma koy xam tout le temps que daan ko fekk si bés yi si koor wallaay la xasim xale yëpp daal ñëw di ko wër mu jëlee tiraanga di ko joxe waaye lii mu wane moo nekk kon nag balay sax ñun mënuñu dara amuñu dara xamuñu dara ñun lépp sa maam ñun bëgg mooy nga ñaanal ñu ñu gudd fan ñu wér ñu wér leen amee xéwal ndax kenn wul ko ginnaaw nag buy topp koy taxañ daal di suuf ci boj Sénégal gii nu nekk foofu bokkul maam yaa ko sëriñ bi nee na la xam muy borom bis bii di Cheikh Abdou Aziz waa juróom di Cheikh Mouhamadou Lamine ni ko sëriñ Baye Fall mi waxee di fi murid ku xamul sëriñ Baara dégg nga ko nee na wax ji li ci gàtt ak li ci gudd lu ci waay fas rek lu mën a toll borom bis waxtaan na ko alhamdulilah nee na si pas-pas rek la aju nee na lu waay bëgg na ko fas rek nee na boo ko si fasee borom bis bi def ko. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Mbacke